ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën fës te ñu ne mu ko jukki dina bokk ci jéey ji nga xam ne nag uh, moom moo am ca diwaan bu Sikicoor uh, ni ki démb ñooñ yu Ousmane Sonko ak itam uh, ba lu tax lu tolloog juróomi doomi aadama daal di ci am ay gaañu gaañu jamono yi may wax ak yéen xam ngeen ne njiit bu Pastef mi ngi janok way taskatu xibaar yi ña nga xam ne nag ñoom la joxoñ mu tuuma ca boobu jëye nag bokk na ci police sénégalaise bi ndax li mu jàpp moom moo di lu jiñ ñoom ñoo di njaak ba tax itam seen loxo euh, jugu ci euh, benn yoon bu ñu sukkandikoo ci ay euh, kàddu Ousmane Sonko keneen itam koo xamante ni maire ba futtu la def ci wàll wi di ki nga xam ne moom mooy yor kàddu PDS bokk itam ci ñooñu coalition wallu askan wi moom Mayoro Faye di ñaalu bu baax a baax lu ni mel tey sàkku rek ñu daal di ubbi aw lanket képp koo xamante ni laale nga ci coow loole ñu daal di lay teg yoxo feneen ca assurance bu Zac Mbao foofe nag xam ngeen ne Sénélec nag nag ci taxawaay way takk der yi lay amalee li nga xam ne moom moo di uh, projet bu ligne souterraine bi nga xam ne nag uh, moom moo jugee Kounoune jëm fi nga xam ne uh, moom moo di Patte d'Oie keneen koo xamante ni nag mbir moomee neexu ko mooy ki moom titre foncier 2744 li mu xamle moom moo di Sénélec dafa jaarale yenn ci ay câble fa nga xam ne moom moo di ca titre am daañu dem fa nga xam ne nag moom moo di ca Dubaï xam ngeen ne exposition universelle ba fay am nag délégation sénégalaise bu takku ma nga foofee nag mu doon loo xamante Euh, gouvernement bu Sénégal moom moo ko daal di euh, bëgg lu ni mel itam dina mën a tax ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu artisan fësal bu baax a baax li nga xam ne euh, moom moo di seen ak liggéey Sara Cissé Hamza Diallo daje nañ ak ñenn ci ñoom daañu leen digtal aw reportage daañu wax itam ci lu ñeel wàllu tàggat yaram match retour bu ñeel ñeenteelu journée bu éliminatoire mondial Qatar 2022 xam ngeen ne réew bu Sénégal dina daje ak ñi nga xam ne nag ñoom ño di waa nabi bi fa nga ne moom moo di ca lu ni mel itam daañ ko gën a euh, faram-fàccee mbokk yi léegi-léegi ginnaaw buñ ci toftalee li nga xam ne euh, moom la yéen i léegi-léegi ñu ma dikk ñu daal di fàccee jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi ñu doore ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko uh, junjee woon jàppale ne jamono yi may wax ak yéen nag uh, jiit bu uh, Pastef moom Ousmane Sonko mi ngi amal aw ndaje ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi xam ngeen li ko wundu mu di coow li nga xam ne nag moom moo jib sa diwaan bu Sikicoor ni kii démb si diggante ñooñu Ousmane Sonko yi ak itam Doudou jàppale lu toll ci juróomi doomi aadama daal nañ ci am ay gaañu gaañu coow ñi nga xam ne nag ñoom lañ ci joxoñ baaraamu tuuma di police sénégalaise du samay kàddu ki ko xam ne eh, di Ousmane Sonko li mu xam ne nag eh, moom moo lu ji njaak police bi eh, moom mooy rek njaak da leen accusé li nga xam ne moom moo di complice wax laa leen ne lu toll ci juróomi doomi aadama amoon nañ ci ay gaañu gaañu ba tax itam ñu yóbbu leen fa nga xam ne nag moom moo di ci hôpital régional diwaan bu Sikicoor ngir rek ñu daal di saytu seen wàllu wérgu yaram bu baax a baax ginnaaw jéyee ja xam ne nag moom moo am suñu ay ndaw dikkaat nañ ci li nga xam ne nag moom moo fa euh, xewe woon Boubacar Diassi Lamine Mandian ci reportage ñu teewlu. urgence bu hôpital régional bu Ziguinchor la ñu indi ñi jëlee ay gaañu gaañu ci jaamarloo yi Alassane Diédhiou bu Pastef di fi nettali li fa xewoon ci loolu la ñu jël ki benn ki euh, rendez-vous ak waa waa pendant ñu nag ci ci waxtaan bi ñu gis ay nerf yi ci suuf ñoo perturbé suñu réunion ñun faalewulee ñu continuer suñu re ba ba jeexal donc léegi ci jamono yooyu am ay ndaw yu nekk ci suuf ci ci suñu parti ci GPS am ñu koy leen attaqué jam leen paaka am ñoo xam ne dañu leen sandi xeer mu ñoom juróom blessé la ñu am Bassirou Sagna bu APR te nekk jéggañaale bu Doudou di wax fii ni provocation la. dafa am koo xam ne benn député boo xam ne dafa ñëw provoqué Doudou Ka dafa ñëw provoqué ko ba pare agressé ay nitam mais lu ngeen gis nii tey xam ngeen ne agression la contre agression la dañu ñëw ces garde corps ont nag soxlawul xeex soxlawul xuloo. ak lu ti am Ousmane ko mi nekk ci bii leen ndaamaar ñëw na fii seet ñu si jëlee ay gaañu gaañu benn waxtu ci gannaaw jege ñaale duudukaay yi di ko tàccul fii ci buntu këram. conférence de presse bi nga xam ne nag njiit bu euh, Pastef mi ngi koy amal ci la jamono daañu ci dikkaat ak yéen nu mu euh, gën a yaatoo mu ñeel coow li nga xam ne euh, moom moo amoon ca diwaan bu Sikicoor ñooñ ji Ousmane Sonko ak itam du Ka keneen koo xamante ni ñaalu na bu baax a baax woowule coow muy ki nga xam ne moom moo yor kàddug PDS bokk itam ci ñooñ yu coalition wàllu askan wi moom Mayoro Faye nag li mu xamle moom moo di yële jamono dañu war a ubbi aw l'enquête képp koo xamante tegi daan yu euh, métti ndax coow ci langue politique bi euh, jot na mu daal di euh, dakk ñu teewlu ay kàddoom ginnaaw bi mu nekkee ganuk info du matin ci micro yaakaar ne kenn ku nekk war nga delloo si waat sa xel que tey loolu ñuy wax ci Ziguinchor niñ ko waxee dañu ne waa kër Dut Kay ñoom ñoo dem song waa kër Ousmane Sonko ca loolu ñun ñu ngi koy ñaawlu di ko dénoncer di wax ne teguñu ko ci dara loolu moo waral sénégalais yi parfois dañuy am jafe-jafe di wax ne yoon amul ci réew mi. alors que pour lépp tege ci yoon il faut ñu instaurer état de droit boo xam ne day yemale ñëpp ba kenn du am sañ-sañ dal ci kaw sa moroom fekk moom la mu yellool lay def kenn ku ne da nga war a def li nga jàpp ne moom nga war a def sans pour autant nga gêner ki ci des ba tax na prétexte su dañu jege yoo dafa doon daje ak waa UNACOIS dafa jënd ak kër euh, famille wu euh, Doudou loolu yëpp. warul justifier le fait que ñuy attaquer ay militants quelconque ba ci gaañ ay nit. itam yoon na def liggéeyam pour que ñu situer les responsabilités ñi nga xam ne ñoom ñooy les fautifs ñu euh, teg leen yoon ci ni ko sartu réew mi tërale donc euh, dafa jot aussi euh, formation politique yi jëlaat seen état major yi defal leen formation wax leen luy rôle militant parce que un bon militant. mbokk yi jàpp leen ne euh, kanjon euh, Mangana ca commune bu nekk ca département bu Bunkiling la nekk foofe nag askan wa jafe-jafe yi nga xam ne euh, ñu ngi koy jànkonteel bari na bokk na ci aw xal woo xamante ni ngir nga jaar fa jafe-jafe ya yu mag la lu mooy itam wàllu corps docteur mu mel ne nag manqué na fa ndax itam amuñu poste de santé bu ñu bëggee saytu seen wàllu wér-gu-yaram dañuy wutali fa nga xam ne nag moom moo di ca réew bu Gambie lu ni mel askan wa jot na mu daal di seen bopp mën koo am ci anam bu mucc ayib Bakary Konte Xaali Jàmme ci reportage Kanjo Mangana nekk commune boo xamante ne dafa am frontière ak Gambie mu ngi ci ay jafe-jafey tar askan bi nag ñu bëri si ñoom dañuy dem di faju si Kampasa village gambien boo xamante ne moo leen gën a jege. Kanjo Mangana sonn nañu de sonn nañ trop ci mbirum faju fu mu nekk nii xale bu feebaree Gambie nga koy yóbbu boo sibiroo Gambie ngay dem ndax moyen fii ba am amuñu ko fii ba Bounkiling dafa sori fii ba Bounkiling dafa sori boo amulay moyen nooy def te oto yi bu dee suñu horaire bi mercredi ak dimanche lay dem boo feebaree jour yooyu ban ban bés ngay ñaat looy def bay dem doo mën a dem moo tax ñuy dem Gàmbi ñun kay fu mu nekk ni man mii sax fa nii Gàmbi laa jógee sama mère bi dafa sibir waaye Gàmbi laa ko yóbbu aw ma moyen pour yóbbu ko Bunkile aw ma moyen pour yóbbu ko Sédhiou. piste de production yi nag baaxuñu loolu nag nekk jafe-jafe ci population bi. man maa ngi ni def naa ñam bi mais buñ kii bi jeexee du ma am nu ma koy yóbbu foog ma yóbbu ko Gàmbi parce que yoon bi doo ko doo mun a aw yoon boobu doo mun a aw yoon bu Bunkile fu mu nekk nii gerte baa ngi nii ñu ngi ko yor sax waaye pour ñu jaay ko Gàmbi la ñuy dem jaay ko dugg suñu oto Gàmbi dem jaay mënuñoo dem Bunkile. amuñu yoon amoo moyen nooy def ba jaay waaw te loolu coono la tam arrangé wuñu ñun loolu arrangé wuñu ci commune Kandiom Mangana amul benn CEM ba tax na abandon scolaire yi bëri loolu surtout xale yi jigéen yi. la commune a quatre écoles élémentaires. Euh, commune bu Kandiom Mangana mu ngi am ñeent école wante nag amuñu collège xale yi nag dañuy dem ci beneen commune di dem jina nii maanaam di fa jàngee jige commune bu Kandiom Mangana dem ci Djinani dafa nekk danger bu mag surtout ci xale yi jigéen yi moo tax nag ñi bëgg nguur gi jàppale ñu daan ñuy tabaxal benn CEM. la commune de Kandiom population yi nag nekk ci frontière diggante Sénégal ak Gambie di ñaan autorité compétente yi ñi daal leen jàppale ndax ñi génn ci jafe-jafe yi ñu nekk. mbokk yi junjoon naa leen ko sànq bi ñu door yi la jotaayu uh, xibaar ñeneen ñu yeewoo fa nga xam ne moom moo di ci cité assurance bu uh, Zac mbaaw jàppale ne uh, foofee nag ñu doon wundu ci jafe-jafe yi bari na jàppale ne Sénélec nag jamono yi ci teewaayu gendarmerie nationale lay amale liggéey bi nga xam ne nag mi ngi ko fay wëyal souterraine euh, kunun euh, padduwaa kenn koo xamante ni euh, njort na nekk lépp lu ñeel wàllu câble yi ci titre am la jaar mu ki nga xam ne moom moom moom titre foncier 2744 ñu dikk ci reportage bi nga xam ne Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb ñoom ñoo ko amal coowal suuf lii ba ma ngay wéy bi te Senelec di ko amal bi a respecté décision bi nga xam ne yoon daal dina koy joxe bi nga xam moom la société bi daal di nekkee. décision bi tombé ordonné Senelec expulsion ci titre foncier bi ak démolir lu mu fi def. donc non seulement respecté wuñ décision bi parce que huissier bi signifié na leen ko mais dañu retourner dem ci préfet Pikine Moustapha Ndiaye mu ordonné leen pour ñu continuer euh, travaux yi sans respecter la décision de la justice c'est le préfet Moustapha Ndiaye de Pikine qui a ordonné les, les travaux avec une groupe waaw ak ak groupe euh, gendarmerie Euh, zone France la jëli indi indi leen pour ñu continuer liggéey bi. même bu fekkee ne nangu na ne ca ndorteel la projet bi laaloon na titre am responsable bu Senelec bi nag di xam ne jamono jii lu ni mel amatul la. bon effectivement ñu génn nañu toj nañu benn benn regard bi sax léegi nag projeté ko sur la voie publique ci yoon mbedd mi ci mbedd mi nga xam ne mbedd mbedd buur la avec la préfecture ak cadastre dañ doon liggéeyal ba ñoom ñoo ñu délimité mbedd mi nañu fii fii mbedd mi la mën ngeen fi projeté seen chambre yi moo tax ñu tabax fi chambre yi bañ ko tabaxee ba noppi léegi au moment ñuy dérouler câble yi moom si lay intervenir léegi préfecture tamit encadré ñu pour encadrer la possibilité travaux mu mettre ñu à disposition à la gendarmerie pour ñu surveiller ñu continuer travaux yi. ñoo jaayu ñu doole ah amul forcing amul dara ah. Moustapha Sène di xam leen dina wéyal xeex bi te kii nga xam ne mooy préfet bu pikin dina ko yóbbu fa mbaxana doon. ñu dem fu gën a sori fa nga xam ne nag moom moo di kunung jàpp padduwa bi la yoon nag dañuy wutali ca dig digal wi nga xam ne nag moom moo nekk ca pharmacie boose ñetti guy jàpp fa nga xam ne nag moom moo di garabu lawbe foofee nag askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo juguñu benn yoon ci li nga xam ne moom moo di ay jafe-jafe ñeel xal wi ngir rek ñu dem ko docteur itam jafe-jafe la tax na ñu amaloon aw ndaje ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi ngir daal di yuuxu li nga xam ne mu di ay jafe-jafe Alioune Badara Ndaw moom moo yor seen kaddu àdduna eh, jëmale ci micro Pambay jaawo Fally Gueye mooy naka la ñu defaree tali 1962 ba jëmm tey tali bi kenn defaraatu ko te tali boobu dara yàqu ko lu dul bi tali bi national bi ñu koy defar fii lañ doon jaarale oto yi ñu koy teggee mu yàqu yaakaar na nag nit taleem bu fekkee ne da nga ko utiliser ba mu yàqu war nga ko mën a defar wax ma la nag rawatina mu nekk yoon boo xam ne yooni koom-koom la te ñëpp d'accord nañ ne koom-koom mënul am te tali jaguñ te li tax mu nekk yooni koom-koom mooy tali bii am nañ pharmacie yu nekk ci kaw tali bi li muy gàtt gàtt yëpp ñetti fuur ñu ngi ci tali bi tali bi am na banque bu fi nekk ginnaaw marché bu mag marché bu ndaw mu ngi nekkee ci kaw tali bi. district sanitaire bi nekk fii nga xam ne tey jii à hopital bu mag fa la ñuy indi maladie ngir lan ngir oyofal liggéey hôpital bu mag ba tey dañu obligé jéggi ko di dem hôpital bu mag. loolu ay jafe-jafe la te ñi yor wàllu wér yaram ak yooyu wàllu développement xam nañ li may wax marché bii nga xam ne marché bu ndaw nit yi di daan seen doole kenn mënatu fa dem parce que amoo foo jaar tali bii kenn mënatu fi évacuer malade malade dañu mun la jigéen ñi suñ jigéen dañu accoucher ci biir oto yi ambulance bi mënatuñ fee jaar loolu ay problème yi jafe-jafe la donc mooy wane ne tali bi dafa am importance bu jéggi dayoo bu jéggi dayoo te loolu lañ bëgg autorités yi ñu am conscience yi tali bi ba nga xam ne dañ ci taxaw def ci seen kenn lay mbokk yi euh, soreetul jàppale ne euh, fukki fan ak ñeent ci weeru octobre wile la ndongo yi di dëkk ma li nga xam ne moom moo di euh, daara yi wàllu njàng mi ak njàngale mi laay wax mu mel ni nag ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jàngee ca école élémentaire Tanor Dieng diwaan bu Kaolack jamono yi nag ñoom ñoo dikk ak seen ak ndimbal ndax xam ngeen ne école bi ci jamono nag ndox mi ma nga fa ni xuus ndaw yi itam lépp lu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi jamono yi nag ëlëm lool xelu ñi nga xam ne ñoom ñoo di wëy jur yi ba tax ña fa doon jàngee daal di rek indi seen ak njàppandal uh, bëgg uh, dimbali ñi nga xam ne nag ay rakk lañ ci ñoom Pambay Diaw Faly Gueye ci ndox yu taa ba ci kuuru école bi ay fenêtre yoo xamante ni danoo daajeeku loolu moo nekk xar kanamu école élémentaire Tanor Dieng te ay fan rek des ci élèves yi dem jàngi situation boobu nag daal di indi njàqare ci parents d'élèves yi. lii ku ko gis parents d'élèves bu gis état bi école bi mel xelam lu mën a dal ci situation bii ñu dund paludisme période la boo xam ne euh, xale duñ wér. donc dañoo war a nekk dans un milieu boo xam ne dafa sañ ñu mën fay am jàmm loolu moo tax tey vraiment bëgg ngeen ñëwee fii di liggéey suñu xol seet nañu wax ngir ñu fexe ba xale yi mën a am fu ñu jaar ba dem ci salle de classe yooyu anciens élèves yi nga xamante ni dañ doon jàngee ci école boobu ñoom ñoo fa indi suuf ngir mën a wutal ay yoon élèves yi ban mën a dugg ci seen salle de classe yi xale yi jàng si fii euh, war a am benn nekkin bu set a sell boo xamante ne nii euh, moo war a am ci école bi bu ñu xoolee école bi ni mu mel nii loolu nag moo waral man ak samay partenaire ñoo fi nekk tey jii nii pour defaraat école bi sëkk ko defaraat bunt yi. ci beneen école bi anciens élèves yi tamit ñoom ñoo engagé wu ngir rek ubbi tey jàng tey doon loo xamante nii dañ ko fay dëggal ca école ba. daje bi ñu fi dajee dañoo nettoyé école bi dagg garab yi maanaam béy ko nettoyé salle classe yi dafa ko ba mu jekk. ñu war a jël ay matériel jox ko directeur d' bi. autorité parents bon volonté ñëpp jamono ji ñu ngi waajal ubbite école bi bu dee ci yenn école yi nag pare naan pour que ñu mën a def ubbi tey jàng am na yenn école yoo xamante nii la 14 bi du nu mën a tàmbali cours yi ndax jafe-jafe ya fa nekk. jërëjëf euh, Pambay ñu àddu ci leneen mu di programme wu euh, développement ak itam microfinance islamique fi ci réew bu Sénégal ngeen gën koo xam euh, ci promise jàppale ne jamono yi nag mi ngi wër fa nga xam ne nag moom moo di bët gànnaar bu réew mi daal di gunge ñenn ci ñoo xamante ni daal nañu yor seen ay projet jàppale lu toll ci 47 milliards lañ daal di ci li ko dooree département bu Dagana Podor ak itam Ndar Géej ngi rek daal di dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi. bokk na ci xeex li wàllu euh, ñàkk fi ci bu euh, Sénégal ñu teewlu euh, député bi lee di Aminata Gueye ak itam coordonnatrice bu promise ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. mënuñu lu dul bég si ak kontaan si parce que loolu la ndaw ñi soxla loolu la jigéen ñi soxla te tey promise dafa ñëw si li ñuy wax jàppale nit ñi ci ñu génn ci ndóol. ñu génn ci ndóol te gis nañu aujourd'hui ils ont amené des des des des des des matériels comme des congélateurs des machines à coudre des tricycles pour accompagner les femmes et les femmes et les jeunes. nga ñoo gën a impactant mooy projet yoo xamante ni dafa laaj xëy na xaalis bu xaw a takku pour ñu defar ko. loolu aussi bokk na ci li ñu indi Saint-Louis donc dañoo ñëw wax waa Saint-Louis ak waa région de saint mais également le département de Dagana ni leen ñun dañoo pare pour ànd ak ñoom ci liggéey liggéey bi nga xamante ne moom la ñu sant nag mooy. ñu gëstu projet yi nga xamante nit ñi porté nañ ko nit ñi am nañ ko population yi soxla nañ ko ñu ànd ci ak ñoom trouver leen ay moyens yi financer leen yombalal leen financement bi yombalal leen pay gi ba ñu mën a liggéey gis seen bopp loolu moo ñu indi tey ci région bi ba indi ñu fii ci Dagana ci département bi merci beaucoup ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar moom moo wund boobule euh, projet ñu àddu ci leneen yéen a ngi fàttaliku euh, grève bi nga xam ne nag euh, ñenn ci ñu yëngu ci wàllu saxaar gi amaloon nañu ko ci atum 1947 lu yàgg la lu ni mel itam mi ngi amoon ci guddik fukki fan ci weeru octobre jàkk jàpp fukki fan ak benn mu mel ne nag kenn ci koo xamante ni dundoon na lu ni mel ndax xam ngeen ne grève boobee metti woon na daal di amaloon app ci lu tollook juróomi weer lu ni mel itam tax yenn ci ay cheminots ci yooyu lee euh, jamono doon dund ak yenn ci ay avantages ginnaaw grève boobee ba ñu ko amalee ñu dikkaat ci ak Cheikh Anta Diop ak Sey Latiir ñu ko fekk fii ci këram quartier Aiglon kii ab cheminot bu à la traité la di Cheikh Tidiane Sow moom fekke na lu bëri ci ñii cheminot yi demoon ba taxawal grève ci atam 1947. waaw grève bi mi ngi commencé le 10 octobre. ci guddi dans la nuit du 10 octobre 1947 kooku mooy anniversaire wu révolution d'octobre mi ngi jeex 19 mars 1948 moo tax grève bi di 5 mois et 10 jours date symbolique la ci taarixu chemin de fer revendication première travail égal salaire égal moo daan moo doon revendication bi ci gën a mag waa ndax tubaab yi ñoo doon ëppale woon salaire boo doon gagné mille francs tubaab baa ngi gagné fukki junni te yéen a bokk métier yéen a dooloo saxaar bi wala yéen a nekk chaudronnier wala yow yaa yéen a nekk bureaucrate écrivain ngay am 1000 francs moom muy am fukki junni xam nga loolu dafa yéeme. waaw te yéen a bokk métier bi ngeen def. grève la boo xamante ni daanaka am na juróomi weer ak fukki fan nee na lu jafe la daanaka bu ñuy xool ci taarix mosul am ci benn grève waaye nee na cheminots yi nag façon jom takku lool ànd ak seeni soxna xeex ba ñu delloo leen cër bi ñu am ci chemin de fer. année bu ne dañuy avancer. dugg dans le benn revendication bi mooy un cheminot un toit coopérative d'habitat bi ku ci nekk amoon droit wu am foo dëkk beneen bi mooy coopérative de consommation bi parce que pour la première fois dans euh, ci histoire u taarixu chemin de fer yow li ngay soxla yépp say soxna war a duggi marché am ngi biir semaine de fer jën mi ngay togg sax mi ngi jóge ci saxaaru ndar bi diwtiir yeeg yooyu bi muy kii yeeg yooyu mi ngi jóge ci ci Louga Linguère daara bi ak soow mi njar mi mu koy def nii kenn amuloon lay bañ midi nga bañ a teg bool bi ndax deux demi la ñuy liggéey waaw te loolu yëpp mi ngi jóge ci grève 1947 bi. retraité yi ak ñi nga xamante ne tey jii ba léegi ñu ngi ñu ngi wut ci wàllu chemin de fer ñu ngi sàkku nag ci nguur gi mu taxawu leen ngir chemin de fer bañ a nax saay tey programme bi nga xamante ne moom la njiitu réew mi yëkkati woon ngir saxaar gi teguwaat ci raay bi ñu jëmal ko ndaxte jamono yi de chemin de fer daanaka dara doxatul. délégation bu euh, takk bu réew bu euh, Sénégal jamono yi ma nga fa nga xam ne nag moom moo di ca Dubaï xam ngeen li ko waral di exposition universelle yi nga xam ne nag euh, fa la ñu koy amal bés yu ñu jagleel réew bu Sénégal fukki fan la ak ñett ci weer wi nga xam ne nag moom la ñu nekk suñu ay ndaw itam dem nañ xool yenn ci stand yoo xamante ni nag ay artisan ñoom ñoo fa nekk di bay seen waar waaye itam di gën a ñoŋal li nga xam ne moom moo di seen ab liggéey Sara Cissé Hamza Diallo la ñu yónni ca diwaan bu Dubaï ñu teewlu reportage bu weesu pavillon bi nga xam ne fukki fan ak ñett ci weeru octobre la ko njiitu réew mi war a inauguré Sénégal nag teew na ak doole fii ci Dubai Expo ay limu artisan yu takku la état rawatina ASEPEX jàppale ngir ñu wane seen mënin ci stand yi nekk fii ci site bi. niñ fi ñëwee nag euh, c'est grâce à ASEPEX avec l'appui de l'état parce que boo seetee ASEPEX docteur Malick Diop mooy le DG. moom moo ñu fi indi jox ñu stand jox ñu billet jox ñu hôtel vraiment mettre ñu ci condition yu baax bu weesoo bile opportunité nag ASEPEX yàgg naa jàppale artisanat local ñiy yëngu ci secteur bi eh, di leen delloo njukkal bu baax a baax. du fii rek la ñu indi expo bi eh, day ànd ak artisans yi di leen dem ak ñoom Italie France Portugal partout dans le monde mi ngi nekk ak ñun nag ca Sénégal di ñu defal ay financement di ñu jàppale. teew fii ci Dubaï doonut woon lu yomb ci liggéeykat yi ndax lépp nag dafa aju woon ci tànneef bu méttee métti. xool li ngay liggéey xool contrôle de qualité bi finition yi et tout euh, ba keroog ñu lay sélectionné donc jàpp naa ne yombul woon. artisanat di secteur bu dund lu metti ci Covid artisan yi nekk village Soumbédioune banque seeni yoxo lu tolloog ñaari at mu mel ni tey jàngat bi ñu ci def mooy ñu gën a ñoŋal consommer locale bi. ñu fexe consommer local bi dox dëgg-dëgg Sénégal lépp li nga xamante ni ñu ngi koy liggéey ci Sénégal sénégal yi nekk ñu jiitu ñi koy utiliser. parce que tourisme bi ñëw di ko jënd moom xam ne li muy jënd parce que lu baax la donc sénégalais bi mu jege nag xëy na du ko xam mais ñun ñoo leen di sensibiliser. di soññ les sénégalais ci le consommé local ñuy gën di sol les consommé local particulièrement les tenues africaines le costume sénégalais ñuy dem di ko sol plus particulièrement les autorités ñu leen ciy ñaaxaat. stand yi ñu sanc ci site bi eh, di fësal bu baax liggéeyu ndawi Sénégal donte li ñu fi nemmeeku tey mooy bëreegul ñu ko ñëw dañ si kumpa mbokk yi ñu àddu ci lu ñeel wàllu euh, tàggat yaram junjoon naa leen ko euh, sànq mu ñeel match retour wu euh, kat ñoom ñoo di waa nabi bi foofee nga xam ne moom moo di ca Johannesburg nag ca Afrique du Sud jamono yi jàppale leen ne réew bu Sénégal moom moo daal di dugal benn gat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar digtal leen la nga xam ne moom moo rusandi ci boobule match wàllu tàggat yaram ba tey def kéem kàttan ba yenn ci ay gox yu gën a sori fii ci réew bu Sénégal ñu daal di amal ay stade ca foofee mu mel ni nag euh, fa nga xam ne euh, moom moo di euh, ca Njaayeen Mandaw soriwul lool fa nga xam ne moom moo di ca Mauritanie ñooñee nag daal nañuy daloo seen ab stade tax na itam ñenn ci ñu fa yeewoo daal di yëkkati ay kàddu yu am solo ngir rek dàq lépp lu ñeel wàllu xaxarante yi ñuy faral di nemmeeku ci lu ñeel wàllu tàggat yaram Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. Ndiayène Pendaaw am na stade bu bees xale yi nag mën nañu commencé foo ci terrain bu nu mel ñu amal ko ci bërëb yi nga xamante ni dañu nekk ay zone frontalière lii ci kàddu kilifa yi dina gën a ñaax xale yi ngir ñu mën a jongante ci jàmm ak salaam. lii ni jéego la firnde la que état mi ngi def lu am solo si zone yu reculé yi surtout les zones frontalières yaakaar naa ne ñoom ñoo koy jooytu souvent ñoom ñooy jooytu bërëb bu mel nii donc bu leen ko fi ëndalee euh, li ñu mën a def rek mooy di leen ñaan. ñu sàmm ko entretenir ko xam ne ñoo leen ko fi defal. ñu ne meeku leeg saa ay jafe-jafe di am ci zone yi lée rawatina ci nawetaan yi ngir nag loolee ba ñu am ñu ngi leen di ñaax jafe yooyu ñu mën ko teg ci suuf dañu nekk un lieu boo xamante ni bi peut-être dina am coow dina am xiiroo ŋaayoo fii biré bu sport la tey sport koo xam ne war a xam ne pour jàmm moo ko tax a jóg yaakaar naa ne pour rafetal diggante yi la pour rattaxal diggante yi la coordonnateur bu PUMA jàpp ni nguur gi liggéey yu ni mel def ciy taxaw ngir zone frontalière yépp ñu mën a jàppale ndaw ñi ñuy mën a tàggat seen yaram bañ a ñee benn réew. terrain football ñëpp xamu mënuñu woon xam sax ndax loolu bokkoon na ci liggéey PUMA mais président de la République dafa ne lépp loo xam ne manqué na ci zone frontalière yi nga xam ne Ndakaaru ak centre pays ñoom yor nañ ko gox goxaan yii nekk ci frontière yi amuñu ko PUMA war na ko def pour permettre aussi aux jeunes de s'épanouir. stade bu nu mel Binta Addo Sow lañ ko duppee. ñu ne nag la ñu bëgg mooy xale yi roy si jukkoom ndaxte nekkoon na koo xamante ni ku jàmbaare la. yooyu la stade bokk na ci feneen foo xamante ni dañ ko fa amal mu di laa waaye lu ni mel liggéey ba dina door bu euh, nawet bi euh, jeexee kàddu yi ni mel euh, ñu ngi ko yëkkati ginnaaw final départemental bu football wi nga xam ne nag ñu ngi ko fa doon amal te ODCAV amaloon ko mbir mu ni mel Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ñoom ñoo ñu fa teewaloon ñu seetaan reportage. mbooloo mu takkoo takko nag moom moo fekkee woon final de football yu phase départementale yu Fatick yi commune bu Fimela lañ doon amalee compétition bu ni mel liñ fa nemmeeku rek moo di match boo xam ni ci terrain vague lañ ko doon joué loolu nag ministre bi yor sport di Matar Ba yitteel na ko loolu ba mu annoncé ci ay saafara. li ñu ci mën a jàpp nag mooy man bi may football ci terrain bi nii la meloon football naa fi arbitré naa fi nii la commencé stade municipal bu Fimela. maire bu moom moo nekkoon parrain wu final bu ni Karim Sène di wax ne ab terrain wu ñeenti hectare délibéré nañ ko ba pare ngir rek tabax fa stade municipal bu ni mel. Euh, yàlla dimbale nañu nag ba euh, am nañu terrain foo xamante ne foofu lañu war a toxal terrain bi terrain municipal bi foofu nag ministre bi également aussi euh, lancé woon na appel d'offre ba mu am ku gagné marché bi incha allah nawet bi moo tax ba commencé wuñ ko mais entreprise bi ñëw xool nañ terrain bi xool nañ fi ñu ko war a def li des rek mooy euh, nawet bi génn récolte yi pare ñu démarrer stade municipal Fimela daal c'est une première à Fimela. yeneen gox yu nekkee ci région bu Fatick itam daañu bénéficier wu ci programme bu ni mel ay bërëb yu ñeel wàllu sport daañu ko fa tabax. pour gunge sportif yi gunge autorités yi ñu réunir le minimum de conditions parce que ku bëgg a football nag dafa am le minimum de conditions pour xale yi mën a gën a def seen jongante. coupe départementale bi nag ren ji ASC Linguère bu Fimela moom moo ko gagné ci kanamu ASC Sangomar bu Fatick. Eh, xew-xew baa ngi ñu des ba tey ci wàll euh, football lu ni mel gën ko euh, ñoŋal fii ci réew bu Sénégal moom mooy bëgg-bëggu ki nga xam ne nag euh, moom moo di Alioune Mara moom mi lee nga xam ne moom lañ darajaale woon ñaareelu édition bu tournoi bu football bu SICAP moom moome itam xam la rek ne dina taxawal ab école de football ngir gën a tàggat ñenn ci ay ndaw yoo xamante ni ñu ngi yeewoo fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Sat bu Jara ak Amadou Ba. pour réussir du nekk rek jaar école jàng mën nga jaar fi sport réussir ne ñun gis nañ ko fii gis nañu suñu ay joueurs ay basketteurs yoo xam te dañoo réussir ba dem di jouer dans le international international. moo tax sport bi dañoo war a fexe jàpp si ba sport bi nekk industrie warul nekk rek loo xam te dañ koy jëlee comme fooykaay sport léegi dans le monde industrie la donc dafa am liggéey yu bari bari yu mu mën a créer mën a a tax xale yi am si avenir ba réussir si alors fii loolu moo ñu manqué parce que tey boo xoolee Sénégal y a qu'un bu mel ni jàmbaar bi nekk Mbour moo fi am ay centre yu mel noonu war na am yu bari aussi bien dans le football dans le basket et autres et autres mën nañu fa génne ay xale yoo xam te mën nañu compétir au niveau international nag ginnaaw euh, tàggat yaram mbokk yi ñu egg ci ci leneen loo xamante ni nag ci jotaay wi la bokk muy li gën a fës ci yéenekaay yi jërë ngeen jëf waa kër Doudou Ka yi doon rayante ak ñooñu Ousmane Sonko yi démb ci siggi coor li yéene yi xëy di jokk jolante ubbi l'observateur ca buntu kër ñoom Doudou Ka ga ca kax ca bokkot yéene kaay bi nee nañu fa la fitna doon def ca seenub siège journal bi nañu ay boori cinq heures demi ci ngoon ci mu di ay militangam ak i ba ñuy dem ca ndaje ma ca la ñu romb ci buntu kër ñoom Doudou Ka ay nit yu fa dajaloo doon ko yuuxoo moom Ousmane naan ko violeur bi yéenekaay bi nañu bi Ousmane Sonko yeggee ca ndajama ñu toog di waxtaan mine day dem yëfee di gën di jaxasoo ca la responsable yi inaa ko ay yi woote lu mat ñetti téeméeri ndaw di ay jeune wër oto Ousmane Sonko bi di ko caxat-caxatee garde corps Ousmane Sonko yi soqi fay bali fetal dóor ko ca kaw mu di ay tir de sommation fa la jàmm jeexee fitna ca jolli xeer ya naaw kurpañ ya tàkk xeexoo ba ne kur ñu bëri jëlee cee gaañu gaañu ba am na ci ñett ñoo xam ne l'observateur nee nañu dañ leen a mujj évacué l'hôpital le quotidien nañu borom gaañu gaañu yu garaaw yi ci waa kër Ousmane Sonko yi la ñu bokk waa kër Doudou li ñu wax ñoom moo di waa Pastef yi ñoo leen taafantaloo ab réunion nee nañu mooy ki ko sooke mu di tuuma yooyu journal bi xamal nañu ne ñi ak Doudou Ka ko ba mu set wecc li ñu wax moo di Ousmane Sonko ak fitna ji mu tàmm ñëpp xamee ko ko moo fa ñëw ak i nervem bëggoon songi kër ñoom Doudou Ka ko bind ci xëtamu njëkk ne ci jamono ji ñeenti weer doxee suñu digganteek élection locale yi ci la fitna ji tàmbalee jolli xaat ci géopolitique bi mu tegal ñu ci ne démb ci Sigicoor ñooñu Doudou yi ñoo attaqué parti Pastef yoo xam ne ay arme blanche la leen gaañee élément sécurité yi àndoon ak Ousmane Sonko ñoo fa mu mën a jaar ba ñibbi këram Doudou Ka mi ñu tuumal moog waa këram mi ngi dàq tuuma ci xët mu njëkk journal bi nee na ay nervi yu Ousmane Sonko ñoo geetaro ngànnaayu ba dëgër taafantaloo ab réunion en face sama kër dem attaqué ji kër ga Vox Populi nañu li xew démb ca Bukot ñaari wàll yépp a ngi koy wéng wéngalante ku ci nekk di ko jiñ sa morom kër Doudou Kay am na ñu ci jëlee gaañu gaañu vox suñuy waa Pastef fi dem nañu bay xam le am na seen benn militant bu ñu jàmpaaka am seen benn militant bu ñu damm loxom am seen benn militant bu ñu toj boppam la kay nañu en tout cas moom bari woon na élection locale yi waral coow li lépp Sud Quotidien moom la xëy ba bind ci xëtam mu njëkk ne locale ouverte mbir yi nar naatar ci ñetti coalition yu mag yi war a sóobu ci combat bi mu di ci may dara ñoom it ñoo ngi ci ruq bi di Les Échos mi ngi ñuy xibaar ne fanweeri fan ci ca la ñu tàmbali déposé liste yi ñeenti fan ci ca la ñu koy arrêté anki dina kay xëy arrêté wu ci maire yi nga xam ne caaxaan jëlewu leen ca maire yi ñu jiite ndax yàgg gu ñu fa yàgg bokk na ci Alaaji Mas Gueye mi def ñeen fukkeet ak ñeent ca bopp maire bu Mbayeen bokk na ci Nguu Siis mi nga xam ne 1990 ba léegi mooy maire bu Ngànjof bokk na ci kii di Omar Sarr ak ñeneen wàllu transhumance anki dina kay gis ne mooy yoon wi gën a gaaw ngir mën a yàgg ak sa ndombal tànk ci wàllu politique firndeli yéen a kaay moo di waa ji di aaleloo jikkoy weñ la yor Senghor fu tooy du fa jóg ma nga woon ca parti socialiste jóge fa dem ci parti démocratique Sénégal di ñoom Abdoulaye Wade léegi moom aalelo ma nga ca mouvance présidentielle bi directeur bu clinique Madeleine ma nga ca loxo yoon l'observateur moo ñu jox xibaar bi ci xët mu njëkk coowal bébé bi lakkoon ba xam faatu ca nurserie bu clinique Madeleine moo tax ñu téye ko ci garde à vue l'observateur nañu te du moom rek moom directeur clinique ba la ak pédiatre ba leen ba ñoom ñëpp ñoo ngi ñu téye ca police bu mbiri avortement médicalisé soleil national nee nañu ñiy xeex ngir bëgg ñu légaliser ko ci réew mi yëf yi du yomb ci ñoom ne protocole de Maputo bi ñu bëgg a sukkandiku le protocole ba wax ak li code bu réew mi wax du benn boole cekkit fii ci réew mi nit yi diine yi ànduñu ci joor Sow Fall bokk ci task force bi xeex ngir ñu légaliser ko ci réew mi ne ci xët national li ñu tax di sonn yëpp ngir njariñal doomu aadama la lise ko mel ne ko naan ñu bu ñu ko légaliser wut terewul avortement yaa ngi mel ne tulleeg màlle ci réew mi bi sukkandiku ci xibaar yu mu jëlee ci Aminata Libembeng di psychologue clinicienne Kane muy wax ne ci menn at wàññi nañu ci réew mi 51 000 avortements provoqués maanaam boo ko doon xayma téeméeri avortement ak fanweer ak juróom-ñeent bés bu nekk jërëjëf euh, Mamadou Mohamed Ndiaye ñu di ko jaajëfal bu baax a baax léegi léegi beneen ab Mamadou dina fi teew jukki leen li nga xam ne euh, moom moo gën a fës euh, ci internet bi ñu di tam ñu jaare fi daal di buural dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 20h daañu fi dellu siwaat jukki leen yenn ci ay xibaar lu ma loolee tam des leen di wéy ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.